salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñu leen di yëgal ne leen Amina Las Vegas ba problème bi jàllee ba tey dañ koo plainte neuf plainte dañ koo jàpp esa bii nii moo ngi mu ñu takkal lam war nañ ko war nañ koo génnee lundi lundi bu génnee mercredi lay wuy ji mais mercredi bu wuy ci la ñuy jugé xool ba xam dañ koy tëj wala duñ ko tëj yaa ngi dégg esa bii nag famille am sonn noonu ñëpp a sonn neuf plainte lañ ko plainte te ñu ko plainte du kenn ku dul ay euh, a ah, ak jabaram ak yeneen gel yi fi nekkoon te ñooñu ay caga yu mag lan yaa ngi nekk jabaru as jooju ku teppi tuunu ndayam la as takk la dem di katt keneen doo bàyyi lëfal ndayam mais bëgg lu yomb bëgg a toog Amérique doo fay rent doo fay dara moo tax nga topp ci as muy katt ñeneen di la katt ku ñàkk ndeyi fay da nga waaye yow moo la war parce que sa yaay yow dañ laa ëmbal sa yaay du wax parce que moom dañ koo katt yow nga juddu doomu biiral nga moo tax doo wax pelanti leen man ma rax seen lëfal nday léegi aw seen doxatu nday man la Adama Boss Tay Negri ñaan leen Amina mu génn gars yi am na ko ma yónnee kaa boo xam ne nii téléphone jàmmoor la sàcc génnee génne affaire yi mais du ko wane mais ay kattante yoo xam ne sa tëtëtëtët